حمدا لمنزل لنا ولائي ومنزل الشفاء والدواء من امر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مسس مرت يبرأ بلا waaye di ñaan yàlla it lii nga xam ne dafa xew ah, di am mbas moo xam ne suñu borom da koo wàccee ci adduna bi ah, mu si ba Touba ñu ñaan yàlla it borom ah, teggi ko def ay ay astaghfirullah jéggalu suñu borom ñaan yàlla suñu borom maanaam musul nañu ci loolu teggi ko. Hmm. ba mu jeex ci réew mi waaye jeex ci adduna bi yëpp. tey nag ñu ñëwoon indi participer ci wàllu jàppale bi nga xam ne euh, dañ koy teg ci loxo ki nga xam ne moo fi nekkal état bi muy sous-préfet di nit koo xam ne depuis ba liggéey bi tàmbalee ba léegi si mi ci def liggéey bu rëy a moo euh, moog yéen waa presse bi kon loolu it ñun euh, ñu bokk ci ñi nga xam ne ay acteurs di chef religieux lañ ci dëkk bi waaye ay acteurs di politique leen en même temps ñu jëg tey ngir li nga xam ne sëriñ bi def na ci action bu am solo yëkkati alal. def ci akuk ñaanam waaye président yi jël ay engagement am ci xam ne mooy seul comptable di ce pays kon lu mel noonu bu amee ñun it la ñu ci war tey ñu ñëwoon ne nan indi ay ndimbal benn mu jëm ci ay machines yoo xam ne nii waa wàllu service di seen ñoom ñoo koy pompe pour détecter yenn affaire microbe yi waaye it mu doon loo xam ne nii tamati euh, moo xam ay ordre sa wala ak i sel ak i omo ak pan ak satale yo xamne pur pour nit ñi man di raxas seen loxo ba set ndax bu du sax ana safatu munil iman yalla mo njëkk bëgg wàlluk set kon set gogit bokku na ci li nga xamne dañ koy xex ak maladie bi waye nak yëmu ci nak ñu xam la xalaat ne it ñi nga xamne ñi ngi fiit laaj nañ ñu mëna xey di indi ay ak yoyu ci leen waxtaanee ben sunu naari yoo xam ne ay sunu xari lan ñu jox ju ci ay do yo xamne tamat ay carton yo xamne ay ngatta la mooy famille sala jox ñuko it ñu indi ko ñom it pour mën ko remettre su préfet ba xam ne buñ xëyeet ñoom it ci mën a mën a ndékki ndax loolu it dana bokk ci lii gën a dëgëral euh, euh, xeex pour feebar bi yii daal la woon nañ ñëw yi ci des nag ñu mën a xool nan la ñuy def ba nga xam ne fi nga xam ne Euh, wàllu transport urbain bi nga xam ne ay sarit lan wala ay mbàkki Tuba ci nit ñi di ci dugg ci amuñu pexe euh, waaye dugg gin ciy dugg it ñu jéem a fexe ba nga xam ne it euh, ay jumtukaay lan yoo xam ne dañ koy yor man di ko jëfandikoo ba nga xam ne danañ mën a ko ci maladie bi kon daal ñu ngi wax wàllu population Tuba nan xam ne Euh, maanaam fagaru moo gën faju kon ñun ñëpp nan fagaru ci maladie bi ba nga xam ne faju du ci am ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen gërëm yéen journaliste encore ci sensibilisation bi ngeen di def waaye nag di gërëm it kilifa yi ma àndal euh, ñoom ñëpp ñu ànd ci liggéey bi te bu ma ci waxee sëñ Abdou Karim ak Moussa Seck wax naa leen ñoom ñëpp ci taxawaay bi nga xamné and nañ ko ñëw tey euh, pour présenter fi ak ñi nga xamné ñi may jappalé man ci wàllu politique. ni rek nous accusons réception loolu nga xamné bi moy gatu yoy ñu andi pour ñu jappalé ko ñi nga xamné bi dañ leen confiner parce que ñoom du ñu dugg du ñu yenn kër yi dañ leen di mettre en quarantaine waye tamit nit boko waxe do dem do dikk da nga ko war a je pense que ñu nit ñu ngi si nekkoon mais bu ñëwé tamit andi ay moyens pour appuyer leen dañu ñu xanaa rafetlu loolu tamit c'est-à-dire qu'il y a une surveillance beaucoup plus discrète la surveillance est là les policiers ne bi pas leen parce que vous euh, savez, sutura dafa baax sutura dafa baax donc loolu moo tax ñu ñu fay def policiers yi fay nous des qui sont en civil donc ñu ngi si lu ñu a xàmme mais ñu ngi bàyyi xel si kër googu na baax a baax baax bépp kër bi nga xamee ni bi euh, dañ la mettre en quarantaine euh, sécurité ma nga foofu di xool dem beeg dikk bi di approché nit ci leen wax nag su mais de façon très discrète waaw parce que ñun tamit xam nga dëkk sutura lañ nekk te même Samba booy sax bu defee jëyee sax police sax duñu nanga wane kanamam dañ boo ko gisee dañ lay dañ koy dëppaloo dox bi rek la ñuy wane doo xam kan la waaw rawatina nag li nga xam ne bi nag quand même ñii tamit defuñu crime c'est pas un crime waaw mais nak crime bi nak bu fekké ni yow yegg nga ni yow da nga ñëw joggé Italie wala frère nga laq tu dugg sa kër yoy crime la waaw parce que lolu amna ñi nga xamné ne bi ñu ngi leen téyé sa kii bi fële mettre en quarantaine amna ñu commencé déjà di fièvre ce que veut dire que si ñu leen bàyyi ñu dugg ci dëkk bi c'est des criminels voilà yoy nak nañ ko xam nak parce qu'actuellement, nous sommes informés informer sensibiliser la population pour éviter de faire du ñëw toxiciens qui seen kër yi ñu leen fay ak un criminel voilà